ci l'observateur eh, ñu xëy di ñu xamal naan ñu Pape Boye Diop mi nga xam ne militaire sénégalais la woon niki démb daat nañu koy màggal daat nañu koy sargal yéenekaay gi di Libération mu ñu xamal ñu tey ji nag dinañu ko jébbal boromam raaya grand officier dans l'ordre national du Lion moom la ñu ko takkal niki démb moo nekk nag premier sportif boo xam ne daat nañu ko koy takkal yéenekaay gi di Vox Populi ak Sud Quotidien nee na stade bu Diamniadio musée national la ñu ne moom la ñu koy tuddee yéenekaay Bouba Diop moom nag nee na am na mbégte ak kontante ci nii nga xam ne moom la ñu sargalee Pape Bouba Diop waaye nag la ko gën a loona lii lépp ñu defoon ko ci dunduk Pape Bouba Diop ndax mu mën koo gis yéen a kaay gi de la Tribune nee na ñi nga xam ne ñooy nappkat yi ci réewum Sénégal mer nañu ba maara détaal yi li ko waral mooy gisatuñu jën wu ñu napp te ñoo ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne fu ko waaye natt daan na koy passé li nga xam ne moo gën a naqari maanaam nappkat yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal bokk na ci accord de yi nga xam ne Sénégal signé na ko ak waay Union européenne ak xam ne ñooy napp jën yu bari ci géej gi gi nee na ñi nga ne ay nappkat lañ nekk sa sumbe juuna nekk sa caaroy nekk sa yaraax nekk sa Rufisque nekk ca Yoff sonn nañ ba maara taali moo tax ni ki démb wane nañu seen bopp yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñi xamal lan ñu neexul ba neexul waaye nappkat yi ci réewum Sénégal mer nañu ba maara de taali ginnaaw geraw bi démb bëggoon nañu amal ab doxum ñaxtu dañu leen koo tere yéen kaay gi de ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Babou moom nag daan nay wax ne président Macky Sall am na sañ-sañ laaj ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal ndax constitution bi may na ko ko moom maître Babou nee na su sañoon Macky Sall du bàyyi nguur gi te nee na sax Macky Sall ci boppam parewul ngir bàyyi nguur gi moom maître Abdoulaye baaboon daan nay wax ne Macky Sall il a le droit de se présenter pour un autre mandat de cinq ans yéen gi di enquête mu ñu xamalal ñu coronavirus beeg ñaareelu vague bi nga xam ne njort nañ ko tiital na gars yi yéen a kaay gi di Vox Populi nee na ñaareelu vague bi bu ñu ko waxee ci Sénégal kenn wuru koo wedde ndax démb rek lu toll si juróom-ñett fukk am nañu jàngoro coronavirus am nañ ñeen fukk ak juróom ñaar ci ay cas communautaire kaay gi de la Quotidien ñu xëy fekk fa Moussa Seydi daan nay woo askanu Sénégal ngir nag ñu daal di respecté li nga xam ne mooy mesure barrières yi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien daan nay xëy ci keneen koo xamante ni woppi coronavirus moo ko rey ancien président bu France bii di Valéry Giscard moom nag coronavirus moo ko rey ay eh, atam toll na ci 94 ans 1974 ba 1981 la jiite réew France jamono jëm koy jiite 48 ans la amoon ak njabootam daan na ñuy wax ne lu jëm ci wàllum dëjël ko kenn du ko fekk kaay yéen kaay gi daan nay xëy wax ci taalibe Serigne Mourou Kara yi nga xam ne teg nañu leen loxo mandat nañ leen dépôt niki démb yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa ministre bi ñu dénk wàllum tàggat ndaw ñi ak wàllum xëy ci réew mi di Dame Diop daan nay wax ne lu jege ñaari million ci ay ndaw yoo xam ne ñu amuñu métier ci Sénégal ñoo fi nekk démb la ko xamle ci assemblée nationale yéen kaay gi di L'As quotidien enquête mu ñu xamal lan ñu am na ñaari jàngalekat alquran ak benn imam boo xam ne teg nañu leen loxo ndax dañu leen di tuumal nen la ñu doon xor ñooña la ab benn taalibe ca mbuur ba mu mujjee ñàkk bakkanam yéen kaay gi délibération xëy na ci deux milliards foo billets yi nga xam ne moom la ñu doon wax ci Dakar Gibraltar journal bi nee na li nga xam ne moom la enquête bi wane am na ku ñuy wax faatu Seck moom nee na intermédiaire la maam Dame Mbacke moom mooy ndeyu mbili gi ki ñuy wax muudu ture moom moo for xaalis bi nee na ci ay chantier yoo xam ne ca train express régional la Pape Saliou Mbacke bi ñu ko laajee nee na xam ne risque yi ko ci mën a fekk dugal loxom gi mu dugal loxom ci lu jëm ci wàllum faux ki ñuy wax Modou Diop moom tim nee na intermédiaire la journal bi nee na am na ñaari mandat d'arrêt yoo xam ne lancé nañ ko Mame Dame ak Modou Touré ndax ñaar ñii ba léegi nii kenn gisagu leen stade yéen kay dikk na ci derby tey ji ca Italie diggante Juventus de Turin ak Torino réew mi quotidien nee na footballkat yi nga xam ne ñoo nekk ci équipe bii di Barcelone weeru janvier wi du ñu leen fay ndax Barcelone moo am ay jafe-jafe xaalis yéen kay gi di sunu làmb xëy ci Modou Lo ak i jaar-jaaram journal bi nee na 14 ans de carrière Lo def na ko ñeenti fan ci weeru février atum 2006 la Modou Lo njëkk a fël ñaar